plaisir de vous suivre Moustapha ñu commencé euh, émission bi ak euh, li nga xam ne moo nekk sujet d'actuel euh, sujet sociétal balaa ñuy ñëw si li nga xam ne moo la minute des internautes Moustapha je pense que l'observateur am sujet mhm. sociétal bu am solo boo xam ne def na ko mhm. Mhm. Moustapha nga observateur Moy ban euh, je pense que affaire euh, la femme là euh, deuxième awo bi nga xam dafa jël rek doomi ñaareel bi la awo enlève le bébé de 14 mois de la ñaareel et le jette dans un puits bile drame nak mu ngi xewee. foofule si yëmbal Moustapha li nga xam ne moo xew si yëmbal nekk na loo lu doy ba si li nga polygamie bi lan moo justifie autant euh, vraiment euh, d'animosité ah man histoire bi liiruma ko mhm. euh, li ma gis rek moy gis naa ci les échos mhm. gis tamit ci l'observateur kon dañuy japp ne ñoom ñoo bokku ni ko waxé mhm. ñaarel bi awo bi mo jël doomu bébé ñaarel bi daal di koy sànni ci teen léegi nak lan moko waral

waaw boo déggee aaw ak ñaareel kay polygamie la polygamie fa nekk parce que bu doon polygamie moom fa aaw kese la ñuy waxtaanee donc ñaareelu fam mais li ci am ba des daal mooy yii du guleet ñu koy gis si dëkk bi hmm. parce que yaa nga gis yoo xamante ne tey jii da ngay dégg ñu la def na doomu diw nii def na nii doomam def na nëleeg nële hmm. loolu moom yàgg naa am képp koo xam ne da nga màggee ci famille boo xamante ne dafa am ay soxna yu bëri borom kër gi bu ko yàlla nattee soxna su am fit wala ku seetul yàlla si li muy def rek souvent dafay def ay dérive hmm. donc loolu dafay delluwaat ci question xool bu baax a baax ki nga xamante ne moom ngay takkanteel. sol mm. c'est très important am na jigéen yu am fit yoo xamante ne boo duggee si ñoom waxuma la sa doomu doom boo jur ak keneen sax waaye yow sa bopp boo moytu ñu sàqal la pexe. Mm-hmm. donc loolu ni mu valable ci góor noonu la valable ci jigéen. je mm-hmm. pense que le choix du conjoint ou de la conjointe. Mm. nit ku nekk da nga ko war a def. Mm. mais parfois da ngay gis ñoo xamante dañuy dugg ci soxna parce que bëgg naa ko parce que bëgg naa ko. koo xamante ne ba ngay nekk ak moom duggagóoleen mu lay dóor mbéj yow ngay góor muy jigéen mu lay yenu di la fitnaal kooku boo duggee ci moom suba bu lu mu la def yaa ko def sa bopp eh, loolu man question man foofu laa koy delluwaat sans pour autant djimu a dugg ci histoire dama japp ne c'est du inconvénient parce que sans ba tey wër di wër parce que xamna naa ne yow da nga bok ci góor yi nga xam ne bëgg tak ñaari jabar est-ce que li Moustapha euh, du inconvénient li nga xam mo nek polygamie surtout euh, les femmes euh, sénégalaises li nga xam mom lañuy dundé leur polygamie parce que y a tellement de rivalité jalousie ba des fois comme genre yi ñu gis fi ngay dem ba gis fi <laughs> jaru nga may xool <laughs> défini yoo xam ne mun ne wala sax du ko sekk ak doomu aadamaam. waaw loo gis njàpp dafa am avantage am ay inconvénient mhm. c'est vrai mën nañu wax ay inconvénient am na ci parce que euh, parfois di nga gis ne comme en commençant par l'éducation des enfants. Mm. dañ si gis ñoo xamante ne bu ñu amee ñaari soxna. ni ñu bëggoon naa yare seen i doom bu fekkente ne xam nga parfois yaa ngi fee. yaa ngi fii di nga manqué yenn temps yi comme ni nga daan boo masaan wàcc yaa ngi fa 16 heures ba 6 heures du matin après nga xëyaat génn kër gi. Mhm. léegi da ngay xëy boo ayee fële di nga toog pratiquement 2 jours yoo xam ne xale duñ la gis. Mhm. donc su fekkente ne soxna si lay wuutu amul taxawaay bi mat mën na indi sooxe ci wàllum éducation xale wala mu leen di nëbbal. parce que ñu bëri loolu lay indi da ngay am sa doom mu dugg ci yenn yi wala def yenn yi am benn comportement bi danañ kaan lii de bu ko sa papa yëgee nga am problème. Mhm. daf koy nëbbal di ko nëbbal di ko nëbbal xale bi day commencé di tux cigarette wala di tux mu di ko nëbbal bu papa ji ne kii kat dama soupçonné day tux mu ne ko tuxul. xale bi xëy di tux yàmba ba téppati papa ji doo ko yëg ne doon tux mm. fekk ne am na benn absence boo xam ne papa ji doo doon doon na ko dund loolu moo tax ma ne la yaay ji moo la ci wuutu mën na cee dimbali mm-hmm. loolu mën nañ ko boole ci inconvénients yi mais cela la veut pas diir que ni tamit euh, lépp ay inconvénients la lépp ay nangam loo gis am nay inconvénients am nay avantage euh, waaw am nay avantage aussi donc loolu am na soxna yoo xamante ne njàpp nekk deuxième femme moo leen gënal. léegi lan mooy avantage polygamie moi je dis tout le temps que la polygamie euh, ku si gagné moo nekk euh, ku góor ki Moustapha lan mooy euh, avantage polygamie surtout monde bi nu muy évoluer fu mu toll nii parce que on pouvait même comprendre suñu jamono. maam yi maa bëgg indi problème parce que moom fi bëggee teg fi may def may def apologie de la polygamie léegi ñu ne Moustapha mii daay wàcc takk ñaareel wala nangam ak nangam. takk ñaareel moom defoo ko. <laughs> mais loolu <laughs> voilà. waaw lan mooy justifier euh, fu mu toll nii euh, cette polygamie lan mooy avantage bi Moustapha. Ah. yow xamoo ko sax de. Euh, lan mooy xamoo ko tu es bouche bée. <laughs> non avantage polygamie bi nga ma laaj ma ma def ay reetaan quoi mais njàpp ñëpp xam nañ ne. Hmm. bi si jiitu dimbali soxna yu xale jigen yu bëri yi fi nekk am pagaay te sëyuñu bu nit ñi takkul ñaar ñett ba ñeente ji ñooñu fu ñu amee jëkkër.

comme yow par exemple boo nekkee deuxième fan ah, ah, di nga ah. mën a am benn jamono joo xam ne njàpp mm, mm, bu sa borom kër demee fële ñaari fan ñaari fan yeneen yaay moom sa bopp yeneen ñaari fan yeneen di nga mën doxi say course nekk say activité dem liggéey boo amee dossier booy bind wala rapport booy bind guddi gi nga jug toog bind ko deuxième femme donc loolu déglu ma bu ko natt si man natt ko si ñoom Kumba Gaajo bu ko natt si man ay deuxième fois. non dama dama lay wax ci avantage. xam nga loolu avantage joxal nga loolu avantage la. jox dina may ko jigéen ki temps. mën na boo xamante ne dina dina dina dina mën a dina dina mën a. vraiment occupé ci bopam mm. amna na ñoom loolu mo leen gënal ah loolu mo leen duggal ci parce que dañu xam allure bi ñuy dawee. Mm. bu ñu nekké ah, aaw mën nañ am jafé jafé seen activité yu bari légui dañuy préférer am deuxième femme su ko defee euh, de temps à autre ñu mën di def seen activité wala ñu mën mom seen bop mais bul jël euh, polygamie rek nga nga tank ko rek sanni ko na leen non non non non non non. Mm. lo ci gis amna ay lo xamantene dañ koy ño xamantene ne ñu ko incarner baxul mm. man amna ay goor yo xamantene fi ay pa yo xamantene ne ñeenti femme lañ soxla ñeenti soxla la am ñeenti soxna <laughs> mais njaab lool <laughs> ñeenti soxna nga gis ko xamantene ñaari soxna lay am rek àddina di bëgg a tukki si kawam c'est-à-dire ça dépend des personnes. ak soxna yi nga dajal. amna ño ñoo xam ne structuration mentale. waaw loolu la bi muy jigen amna ño ñoo xam ne naturellement. Euh, attanuñu ñaari soxna lay polygame en fait. waaw loolu amna voilà mais légui kooku bu ko forcer moy indi problème. Mm. mais ki nga xamante ne soxna la tamit te mu leer ko ne tamit mën naa wujjee wala bëgg na wujjee te wujje bokk wërsëg la rek mm-hmm. bu leen yàlla boolee ngeen bokk wërsëg bokk borom kër bokk wërsëg waxtaan juboo àdduna amul solo loolu la rek li fi loo xam ne yaay yi daan nañ ko def maam ñi daan nañ ko def tamit c'est pas la fin du monde du dëgg defuma apologie polygamie nag. <laughs> moo gën si yow de balaa ngay ñibbi ñu on va te bien te tirer les oreilles nga xam. naa ñuy déglu naan ngi toog fële di di di ku nekk na def li ko arrangé rek li nga xam ne moo dal xelam loolu mooy àddina Ah, mais en tout cas dans euh, lu de la di société sénégalaise euh, les femmes je ne vais même pas dire les hommes les femmes ont vraiment du mal à adopter un comportement normal Si ñu ci ay euh, mariage polygame je demande je me demande des fois ça pourquoi elles s'efforcent vraiment di nekk ci couple pour ramener des fois duñ ci am ay jéeyu doy wax lañ ci ko comme ay incidents yi nga xam ne gis neen ko foofu la ci yëmbal peut-être justice dina ci def li nga xam moo nekk liggéeyam ñu ñëw si li nga xam ne kii nee na ñaareel dañoo bëgg lu yomb dañu toog ba lépp neex ñu doog a ñëw mais c'est vrai en plus ah mais loolu tooñ la mais c'est vrai en plus yow est-ce que mus nga ñun suñu génération bi Moustapha ñu gis nga ñun ñuy dem di sëy góor boo xam ne yorul dara mais njàpp ñaareel boo ko pour doon ñaareel bokkul situation ñorul benn xam nga aaw hmm. man mën naay taaba taaba takk jabar mais ñaareel doo taaba taaba di takk ñaareel quand même hmm. xanaa nga doon ko am fi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg hmm. mais ñaareel toujours li si ëpp bokk laay wax du ñëpp mais ñi si ëpp bu ñu koy takk day fekk ñu mën ko Mm. seen revenu day yokk seen mm. situation yokk ñu xam ne ñun ñii kat am nañ loo ne mën nañ ci xaj wërsëgu keneen xaj na si ñu jël wër kooku dugal ko ci xajal ko ci Moustapha léegi loolu tey jii du question bëgg lu yomb ba dangaa toog ba nit ñi nit ñi non non ku góor ki moo ko sentir gis ne toll tool na foo xam ne war na mën a am ñaareel ñaareel mu dem indi ko moom mu tombel loolu li nga tata germaine mi euh, ñaarel bi nga ma wax ni sa da ko metti ne la quand même man duma ñaarel li mustapha ah, tata germaine li nga wax ni sa war nga mën doon jaarel nak parce que ce profil ñaarel la kolal ce profil ni ngay liggéey ni ak activité ak yoy déjà yaa ngi bëgg am garderie ak yoy ak yooyu déjà ni ngay occupé ci xalé ak yooyu boo nekkee ñaarel après day tax deux jours nga nekk ci xalé yi topoto xalé yi garderie bi xam nga day bëri ciow yoy légui yenen deux jours nga nga may ko sa sa sa borom kër lool la rek yaa wax loolu yaa wax loolu. léegi da nga may menacer en pleine émission. ah yaa wax Dang da may menacer en pleine émission. yaa wax on continue. Hein? on continue. yaa wax Tu tu maintiens on continue merci beaucoup euh, la minute des la toute nouvelle directrice des programmes. Euh, bu Walf TV euh, ñu koy souhaité rek euh, yàlla euh, seddal li nga xam ne.